Bye.

kii di tonton Mimi lan moo changé ci diggante bi nañu déglu ji Gallo Ba. Ousmane Sonko ñoo defandoo ba ñu année université ba amandoo maîtrise defandoo ENAM mosul jiit ab service mosul nekk directeur mosul nekk DG kooku xamul état réew mi ku mënoon nekk service service mënoon nekk directeur xalaat bi laa dénk Sénégal ma diggee ñaaw du ay waxam ak keneen kon nag ñun dañoo gëm ne. fa laay daanale ngeen baal ma kon ñoo ko déggandoo moom Galaba maire bi nga xamante ni daal moom moo dem rallye ji jëmale ko ci Pastef topp ci ginnaaw kii nga xamante ni mooy tonton Mimi ginnaaw nag galabaa nee na ñoom ñoo jàngandoo defandoo université defandoo ENAM ba génn mosul jiitee direction musul nekk chef de service musul am dara lu mu jité amul compétence amul dara xam-xam jëmale ko ci état kon duñ ko jox suñu réew kon lutax tay ji mom Galaba mu préférer dem rallier yi nga xamante ni amul compétence musul jité service musul jité direction musul nekk directeur général ngeen defando université ba era nga xam ay compétence la tay nga jóg pour rallier ji nga ne c'est dans l'intérêt du Sénégal est-ce que Galaba bi bëgg na intérêt du Sénégal képp kuy militant Galaba nga dem toppi ji ki nga xamante ni mooy Galaba ci lu mu woté kon yaakaar na ni nit kuy wàcc lu bari pare di ko lekkaat su dee lii politique politique ci Sénégal wax dëgg yàlla nit ku nekk war nga suur politique ndaxte politique dafa war a doon yëfi góor politique dafa war doon yëfi noble politique dafa war doon yëfi gentleman politique dafa war doon nit koo xamante ni nit koo mooy passé Pastef mënoon na rallier parti bu ko neex mais sauf Pastef parce que mënoo yëkëti cadre yu tek ko ci nit ba paré nga ñëw bëgg a toppaat ci ginnaawam yow mi xam que daal amul dara lu mu xam ci état tay nga bëgg top ci ginnaawam pour ngeen defar état ban état ngeen di defar xanaa seen biir kër ngeen ko defar wala intérêt personnel je crois que les Sénégalais doivent prendre leur responsabilité jël seen conscience ci 17 novembre bi ñu jëm plus particulièrement ñi nga xamante ni ñoom ñëpp dañoo transhumé jëm côté Pastef lan moo leen fa yóbbu intérêt askan bi wala seen poste à vous de juger